mbégte rek bu baax a baax a baax ci jotaay bi nga xamante ne saa su ne ñu ngi koy séq ak yéen fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk ni ñu ko defee ak yéen booba léegi ñu ngi leen ni toppal li nga xamante ni moo di màggal Touba waaye yaakaar ne ba tey ñu ngi ci màggal gi ndax it tey ñu ngi ci li nga xamante ni mooy lendemain màggal Touba ni ko noonu nag tey ma ñëw fi nga xamante ni moo di suñu kër suñu dal fekk fi suma frère Alaaji Mbay Dogo waaye ma fekk nag ci kër goo xamante ne suñu kër la ndax suñu doyen moo fi ne muy moo Gueye héritage couture ñu koy nuyu bu baax a baax a baax Dogo naa mbégte tey seet si la fekk si la nag nga toog toogaayu bëgg nekk tarkaal la dafa mel ni daal fi ne nii sëñ bi yaakaar tout le monde entier ndax màggal gi ñu jógee mu nekkoon démb daanaka neex na lool sax am na fu mu tàmbalee waaye amu fu mu yem. naka nga mi démb. waaw mbégte mi moom képp kuy jullit rawatina nga di murit waaw da nga koy yëg ndax feet la feet la cant la waaw. ñun ci suñu xol lañ koy yëg ñoo ci gën a néew li ñuy jëf bokk nañ ci ñi gën a néew li ñuy jëf waaye yàlla nattu nañu ba bëgg nañu. waaw mu ngi suñu xol parce que dañ koy dañ ciy kontaan. waaw bu baax a baax. bi nga Touba yàgg dugg waaye nga dugg fekkaat dëkk bi ni nga xamante ne at mu jot rek noonu la muriteek noonu la julliti di wuy see li nga xamante ne mooy Serigne Touba ci bësam bi ñëw leen sant la ma yàlla nga dugg ci dëkk bi yëgaat lan. waaw dugg ci dëkk bi da yëg beneen da ngay yëg beneen njàmbaaru Serigne Touba da ngay yëg beneen darajawu li ko yàlla sunu borom defal ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni moom la yaakaar moom la bëgg xam nga da ngay yëgaat beneen victoire bu bees bu jëm ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul comprendre nga euh, parce que loo xamante ni chaque at mu am te saa yu amee am ay tànku kanam amul tànku ginnaaw loolu ak cant la waaw koo fi mën a gërëm wala nga sant ko sëñ Tuubaa sant koo fi mën a jàppale wala nga jàpp ko sëñ Tuubaa jàpp waaw ndax moom moo demoon géej ñun lu neex lañ fekkee lépp lu fi metti moom féete woon ko ba def ko waaw ànd ak tubaab bi def li mu war a def dékku coono yi jàkkaarloog gaynde yi yaa ngi dégg yi métti yëpp moo ko def waaw ba dem ba des ay gato ay fromage gruyère ay ay ay ginaar ay pison mu ne ñi nga xamante ni jullit yi jël leen yooyu ngeen lekk ko ngeen berndeel ci seen bopp ndax man yéen a taxoon ma dem xare ji waaw loolu ak cant la. waaw sant waaw loolu la ñu jagleel. waaw yu metti yëpp jël na ko ñun yu neex yi mu jox ñu ko waaw. lan moo la gën a neex démb ci màggal. waaw li ma ci gën a neex. li ma ci gën a neex mooy Touba foo dem benn lañu waaw. jullit yi foo dem benn lañu. du Touba du Touba sax. waaw waaw yéenente bi joxe lekk bi xam nga saraxu bi kaay lekk ngir yàlla kaay naan ngir yàlla loolu dafa ay valeur yu doy la waaw man loolu bokk na ci li ma gën a neex. ma mhm. fekk la sa kër fii nga xamante ni tey mooy sa dal te yaakaar naa ne du première fois du deuxième fois ma fekk la. waaw fii mooy kër Modou Gueye héritage di nit ku baax waaw di nit ku baax bëgg sëriñ Touba lool lim ciy jublu mooy moom day ak taalibe taalibe la te li kër gi di taaru taaru taaru dara génn ci màggal gi lépp ci màggal gi la ne lu nar a déborder ba nar génn màggal moom mooy naan déedéet màggal Serigne Touba lañ fiy màggal benn jàmbaar a fi am muy sëriñ Touba fi Touba kon loo gis kër mu rafet rafet loo gis kër mu bari bernde du ka ko fa def waaye sëriñ tubaa la ndax ka ko fa def day jël cëram ak cëru keneen ak keneen boole ko jox ko Serigne tubaa ndax Serigne Touba lañuy fetal waaw xool nag mooy def moom Modou Gueye ñu koy sant bu baax di ko gërëm ndax ak a yër na gan yi xam nga ba fàtte boppam boo ko fekkoon fii danga naan nekkul sax moom moo def bernde yi ndax doo ko gis ci kanamam doo ko gis ci doxinam waaw te loolu ak taalibe rek moo ko mën a may doomu aadama waaw ndax ñun dañoo nekk ay nit yoo xamante ni euh, amul lu ñu doomu aadama mu ñu jaay lu dul ak taalibe pour ñu nekk ak yow waaw ñun foofu la bokk waaw moom dafa nekk nit koo xamante ni nii li muy gën a bëgg ci nawleem mooy nga am moom li mu am waa moo dugg héritage waaw man ak moom ba ñu xamanteeg léegi def na gàtt gàtt treize ans quatorze ans comprendre nga li mu gën a bëgg mooy di saafonteeg doomu aadama yi ak di la wax ay projet nan ngay def ba lijjanti sa boobu ci àdduna parce que àdduna ki fi bëri le ak ki fi ñàkk ñoo yem lépp pertement la rek àdduna bi ñu ne lépp pertement la parce que lépp ci dee lay mujj waaw dara saxu fi comprendre nga ki bari la bu yenn bari lay sax moo gën a nekk ci ay problème parce li tax mu gën a nekk ci ay problème mooy parce que moom bis bu fi jógee xamul ñu nekk ci ginnaawam nan la ñuy doxalee yaa ngi dégg kon yàlla waa kon yàlla. la sàmmaloo te boo ñëwee. ay moo tax yàlla na yàlla dolli jaami sutura. dool leen wér. dool leen ak ngëm. li gën a jafe ci àdduna mooy ak ngëm. waaw ngëm day ànd ak yéene. ngëm day ànd ak tawfiq. waaw ngëm day ànd ak loo xamante ni yow li nga bëggal sa bopp da koy bëggal doomu aadama te yàlla sunu boroom rek tax ñu koy gis ci saxaar kanam di ko gis sa biir xool parce que doomu aadama kenn mënu leen nax. macha ci kaddu yooyu waaye laataa maa génn ci point boobu rek alaaji alaaji lu la Serigne Touba defal. Serigne defal na ma lépp. defal na ma lépp sant naa ko bu baax a baax moom laa la wax ci commencement bi waaw man Serigne Touba euh, Touba gi mu gim gim def nii rek ba ñun ñëpp ñu fiy ñëw di am jàmm rek doy na teral waaw. waaw ak murit laa rek teraanga la. waaw sëñ Tuubaa defal nañu lépp defal nañu lépp waaw ndax si ab Lahad doon wax naan dégg naa dama ko dégg nag ñu ne si Abdou Lahad daan na wax naan àdduna lu doy dëkku fi doy loo li nga am rek fi ne waaw ku ci nekk ci li nga nekk mën nga cee nekk champion. waaw. macha allah ci kaddu yu am solo yooyu ñu ko ci ziaraat bu baax ci kaddu yu yooyu nga xamante ne yëkkati nañu ko suñu frère Modou Gueye héritage couture ñu koy nuyu moom it di ko ziar bu baax ndax lépp lu allah ji wax nañ ko ci moom di ñaan yàlla yàlla yàggal li nga xamante ne aussi moo di taxawaayam waaye ci noonu allah ji du ñàkk aussi ñu waxtaan ci benn naqar boo xamante ne sénégalais dundoon nañu ko ci suñu frère ngeen bokk dëkk waaye muy Aziz Dabala faat bi nga xamante ni faatoon nañ ko ko loolu aussi yëg-yëg bi ak bi nga ko déggee naka la la def ak lan nga ciy wax encore. waaw naqarlu ko trop naqarlu ko trop trop trop mu nekk loo xamante ni lu ñu metti la lu ñu metti ba fu metti yam la ndax man Aziz xam naa ko parce que gis nit mën a wax turam mu jaar sa bos rek doy na xamante waxatuma laa ñu dëkk benn dëkk muy Pikine mu nekk monument foofu. nekk fa jàmbaar dégg nga seen waa kër liñ ko seddeel mu nekkoon seen soutien de famille kon kooku boo ko fa jëlee ci anam bi yàlla mooy dogal mais boo ko fa jëlee ci anam bi day xaw a metti ci xol yi day metti képp ku ko jege ndax Aziz ñi ko xamul sax affaire bi ñoom la gën a metti ñi ko xam comprendre nga parce que tiim doomu aadama muy Aziz muy waali boobu mu àndaloon xam ma di leen ñaanal yàlla fi ñu jëm yàlla leen gënal fi ñu jógee di leen ñaanal yàlla yàlla teerul leen yàlla defal leen jàmm xaar ci ajana yu kawe waaw deuxième position bi ma ciy waxaat mooy am nan lu nu metti trop ci yii di am ci dëkk bi waaw. yërmande gi am ci réew mi soxorante gi dem ba mën a tiim nit faat ko allah ji ban Sénégal lañuy. waaw parce que Sénégal psychopathe yi dañ fee bari maanaam képp ku dem ba mën a jël arme jubal ci nit jubal ci nit moment bi nga koy def yow nekkatoo nit. parce que nit ak ni ko yàlla def. nit ak ni ko yàlla bëggee. nit ak teraanga yi ko yàlla defal yëpp amoo looy xalaat ci moom ak lu mu la mënti def lu dul jël lu metti di ko ko def yow dimension bi nga nekkoon loolu nekkatoo nit. nguur gi lañ ciy ñaan ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kaw téye réew mi ñu def ci li nga xamante ni moo ci war. képp ku fi def nit loo xamante ni waroo koo def képp ku fi ray nit te tay ko te tay ko dañ laa war a ray waaw waaw que dafa metti dafa metti ngay fekk nit defu la waxu la wala ngeen jote lu ndaw àdduna naqar ak naqar ak bànneex ñoo fi ànd ñoo fi nekk yow bu nu àndoon une semaine ci biir une semaine par force ma def loolu la métti par force yow nga def ma ko mais maîtrise day am nit da ngay am maîtrise nit da ngay jéggale te yàlla tax te foo xamante ni yàlla suñu borom dalay wax da ngeen fee jaar rek foo jaar dafa jara ñaawal foo xam ne da nga jaar rek dem ñu jàpp nit ñi di leen rey comme ay kaña di def nit ñi yu metti di leen gaañ di leen agressé yooyu Sénégal rek la des di ko métti lu bu baax. moom milliard jëloo ci moom dara. mais dafa parce que parce que mooy li ma lay wax parce que moment bi ñu koy def ñoom nekkuñu nit duñu ay nit duñu ay nit. duñu ay nit nit warul am lu tax nga war ko rey nit warul ñàkk lu ko rey parce que fii jàmbaar amu fi. jàmbaar amu fi fit amul jom moo am. su ma yëkkati woon sama loxo léegi di la ko dóor nga laaxatu soo yëkkati woon sa bos léegi di ma ko dóor ma laaxatu mais soo gisoon ñu may def lu metti ci mbedd mi da nga taxaw loolu sa njom moo la fa téye sañ-sañ amul jom moo am nit ñi dañoo ëppante jom. léegi yow boo ma ëppee jom ci ngay mën a muñ ci ngay mën a gis nit am lu baax nga yéene ko ko parce que lu baax bu la yàlla mayee jom da lay may xol bu rafet amul ku am jom bi baaxul koo gis mu ñàkk jom amul benn jom boo ko xoolee xol ba daa tilim waaw ku am jom am ay projet bëgg dara xol ba daa rafet ndax ku am jom terle nga ci bëgg mm-hmm. te booy terle rek yàlla defal na la xol bu baax mm-hmm. boo amul xol bu baax doo terle waaw li ñuy def nit ñi ñaaw na ñaaw na torop man métti na ma torop torop waaye ginnaaw li nga xamante ne xew na ci moom Aziz ak euh, Waly euh, am nañ information tey xëy ni jàpp nañ ki nga xamante ni moo ko faat fii ci Touba. jàpp ko. kañ. nga xamante ne mooy euh, Touba fa lañ ko jàpp. waaw alhamdulilah. bu dee jàpp nañ ko nañ def li nga xamante ni moo ci war. pour joxe exemple képp koo xamante ni yow raykatu nit nga wala da nga daasoon sa paaka pour ray nit. waaw. joxe exemple bi lu bëri wala ñu bëri ci sénégalais li ñuy ñaan te di ko exiger mooy peine de mort ku rey ñu rey la alaaji na ci loolu. naa budul accident. nit ànd naag nit di liggéey sax ndogal am. nit nekk naag nit ci safo safo bi daanu. yaa ngi dégg nit yor na oto. jublu ci dara lu ñaaw. dal ci kaw nit. maar day taali moom mi ko rey sax ci moom lay gën a metti yooyu mën nañ ko négocier mais arme balance arme poignée arme. mbool de court ku ko yëkkati nit jubal ci nit ba def ko loo xamante ni yow intention boobu nga jëloon pour gaañ ko bu la ci ndogal fekkee nga rey ko dañ la war a rey lu metti xajul ci doomu aadama lu metti kenn waru ko def nit kenn kenn warul def nit lu metti waaw nit bu la tooñee da nga war a teral nit bu la tooñ moo mën a muñ da ko war a teral yedd ko ndax koo teral yedd nga ko bu dee gor Euh, mbir mi am ñu bari di wax euh, ñi ko jege ñi ko jege ñi ko jege Sénégal léeg bu ñu fàtte nit dañuy xalaat ci xarit yi wala ñi ko jege. non man du ma dugg ci domaine ñi ko jege du ci dugg lu tax du ma mooy aw ma fa expérience. mais dafay ñëw ci li wax paaka bi lay rey sa waaye koy daa sénégalais dañuy utiliser loolu ba tax bu ñu fàtte nit rek ñu jàpp ni ñu ko jegel waaw xam nga rey dafa diis bu rey xasee ba am bopp yi day ubbu. bu day xasee ba am nit mën na communiquer sax fekk da nga jege ki ngay waxal te yow xamoo sax li ngay wax wala doo ko doo waxee sa sago tàngoor ngay waxee yaa ngi dégg mais Aziz ñi ko jege moom bëggoon na leen moom bëggoon na ñi ko jege ndax maa ngi dégg naan semaine bi nga xamante ni semaine boobu la gaañu sax mook ay xaritam ñoo nekkoon ñoom ñëpp comprendre nga kon di leen ñaanal ci côté boobu ñi nga xamante ne ay proches lañ yàlla defal leen jàmm waaw ñi nga xamante ne ci am ay problème yàlla seetal seen der yàlla teral leen jàppale leen waaw ndax buñ demee ba xam ne ki ko rey ne kii moo ko rey leneen li mooy jéem a focus ci koo ko rey pour lijjanti li nga xamante ne moom la def parce que li mu def du lu baax li mu def kenn rafetlu ko waaw adduna nag moom yonent bi ci boppam amoon na ay soppe am ay noon te moo ñu gën waaw. ngeen wax lan police Sénégal ci liggéey bi. police Sénégal li ma leen wax mooy ñu gën a dolli seen liggéey bu fekkoon police ba 15 gën a liggéey bu rafet lañ def ci tali bi bi ñuy màggal si ndax moto bu dal bu daw bu baax dinañ la ko wax ne la wàññil waaw cak point yi bari na man moto laa yor moom laa màggal see maa ngi ñaan yàlla balaa déwén maam 4x4 bu mag yàllaa koy maye comprendre nga moto bi maa ko moom maa ci toog mu neex ma fier ci parce que sama moto la yaa ngi dégg kontaan ci lool ñu may nuyu may nuyu waate comprendre nga mais maa ngi wax ne police Sénégal liñ gën a mën a def mooy gën a dolli seen effectif gën a liggéey te ñiy liggéey ci police yi ñu gën leen a jàppale ba ñuy gën a bëgg ndax ku dem ba yor sa kaaraange yor kaaraange dëkk bi kooku warul di taxaw ci télé di frustré wu wala muy am problème mu dépense wala muy taxaw doomam feebar mënu koo faj bu taxawee tali bi di ko mën a lijjanti. yaa ngi dégg moo tax état bi nañ gën a jàppale am de tenue yi nañ leen gën a jàppale. Euh, sànq dañ doon waxtaan ma yow. comme que dañuy màggali baay bañ màggali ba ñëw. incha allah buñ màggalee ba ñëw di nga dégg ci Sénégal buzz exclusivité Alaaji Mbay ak Tyson gën gi neew man nag waa làmb dama leen promettre benn affaire man su ma bëree waatee daanu bàyyi làmb waaw je pèse bien mes mots man waruma daanu parce que Sénégal maa ci dàq bëre man su ma bëree waatee daanu laisser la lutte totale baax na parce que gaynde mer na fanaanoo dama ne la ñoom ñëpp maa leen mën expérience laa amul woon dama doon avancer wax naa la ko suñu interview bee passé arrière laay bëree léegi damay arrière bàyyi fa sama droite bi di la ko dóor boo xaroo ma daan la jël bu rëy. gis nga Tyson Gouye Gui neew non Tyson Gouye Gui neew moo la gën a xam ni moo Alaaji Mbay bu taxawee te am na beneen promoteur bu bëgg mën a mën a buuse MMA loolu ñu ngi koy dox suuf mën a Ketchup MMA king boxing am na promoteur bu ko bëgg yooyu yëpp comme que màggal gi moo ëpp doole loolu fuuf waaw ci màggal gi lañ nekkoon waaye bu ñibbee dellu ci liggéey boobu incha allah. am naa mbégte bu baax a baax ci am ak yow jotaay ma bàyyi la nga joxe dernier kàddu yi moom. waaw waaw buusa nee na bul bëre ak yow ak Tyson gin ginnaaw sax loolu maa ngi koy fàtte parce que nee yaa ko mën da koy rey. buusa nee na. moom parce que yaa ko mën. non dafa xam sama talent xam na sama talent ter yi bañ lim ciy gën a bañ nag mooy lim ciy gën a bañ mooy ma gaañ Tyson gin ginnaaw pare sama combat moom MMA jot ma ko moom loolu lay gën a bañ comprendre nga. parce que ñi bëgg sama combat buuse MMA dafa bari. Tyson Gueye ne moom dama ko gis ci benn sit muy wax naan Alaaji Mbay lii Alaaji Mbay laa combat boobu dina taxaw léegi incha allah. non non parce que dañ ne làmb am na ñoo xamante ni boo leen bëggee percer faaw nga jaar ci benn luur daañ ko avec la manière bu ma defaralee Tyson ngi neew sàpp bi lañ may solo hmm? waaw ndax dinañ xam ni man damaa mën a bëri man sama bëri waneegu ma ko te ko war a yi ma wax ay cabaxal laa wane ay mbotu colal ay fàq des na ay prise ay jeux olympique des na ay përie ginnaaw waaw des na ay tricage ay film ay Jackie Chan ay affaire waaw lamb dafa neex kontaan naa hélas di la siyaar di la gërëm di la baalu àq di ñaanal waa Sénégal bës yëpp di gërëm borom kër gii ñu ne muy Modou Gueye héritage ma koy wax di ko waxaat nit ku baax di gërëm gos droit bu baax yaa ngi dégg di gërëm njaak njaak njaay maa ngi koy gërëm njaak maa ngi koy gërëm bu baax jantal men la nit ku baax la man bi ma xamante ak moom yàgg na ëpp na quinze ans vingt ans njaak déggoo li ma la de boo gisee moo ko damaa xam qualité yi mu yor maa ngi koy gërëm bu baax njaak yaa ngi dégg di gërëm maalik mbokkum nday Baye Ndiaye maa ngi koy gërëm comprend nga di gërëm sàmm kenn bonofita bu baax a baax yaa ngi dégg di gërëm àdduna yëpp àdduna yëpp di gërëm Sénégal gépp yaa ngi dégg di gërëm Jean sunu traiteur bi nga xamante ne moom lañ fekk Touba dara manqué wul non kenn du moom kenn du di gërëm gauche droite di gërëm Ousmane Thiam di gërëm Elomo Jimo yaa ngi dégg maa ngi koy gërëm bu baax a baax di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg yaa ngi dégg di ñaan Sénégal yàlla fi jàmm yàgg di ñaanal àdduna yëpp. ñi màggal si woon yàlla ñibbi si jàmm. ñi tali bi dafa taw. dafa tooy. chauffeur yi ñibbisi bi nañ def ndànk. te buñ wàcc de trop lu bari. parce que suuf si am na tuuti ban. yaa ngi dégg yenn wàcc yu bari yi bu fekkee tuuti embouteillage la gérer ko am patience oto yi doxal nga doxal. yaa ngi dégg jarul yenn wàcc yu metti yi. yaa ngi dégg di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm sëñ fàllu mbokkom day waali Seck maa ngi koy gërëm di gërëm Ousmane Thiam Togo wax naa la ko yaa ngi dégg di gërëm Toumani di gërëm baay Bada yaa ngi dégg fifty maa ngi koy gërëm bu baax Samba kenn Bonafita waxoon naa la ko nit ku baax la yaa ngi dégg di gërëm sama xarit yëpp elu maa ngi koy gërëm bu baax moo nami moo frère moo jumeau moo moitié maa ngi koy gërëm Ousseynou Wade Assane wadd Ama Balde maa ngi gërëm sama papa bu baax a baax di gërëm sama soxna maam jaara di gërëm Sénégal gépp di gërëm Aline Fall nit ku baax di ko gërëm di ko ñaanal saddaxalaal Mawlana Azim wa ballahu rasulul karim yàlla nañ màggal si waat déwén.